jëfati sëriñ Saliou Mbacké jërë jëfaat sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yàlla na yërmandeem gën a wasaaroo ci ñun mbokki taalibe yi mbokki jullit yi rawatina mbokki cantaakoon yi man sëñ Xaadim Cuun moom Cheikh Béthio ñu di ma dàkkantale sëñ Xaadim député man mii ma jëlaat ay kàddu ngir ci ndigalu sëriñ Saliou Cuun xalif général de cantaakoon di yëgal mbooleem cantaakun ni yëg yëg yoo xam ni yëg nañ ko ñu koy def ci suuf si te ñu waxoon ci waxaat ci te ni ma ko gisee eh, yooyu nga xam ne moom lañuy def mu jëm ci suuf si di ko joxe ci lu lu dul ñu yëg ko duñu du lu njaboot gi yëg du loo xamante ni lu ñu waxtaane la ndax kat am na loo xam ni commission boo xam ne tëral nañ ko ngir mu saytu suuf si te ñu ngi koy saytu waxoon ne liggéey bi nga xam ne moom lañ ci doon def dañ koy saytu ba xam kan lañu joxoon ak kan lañ joxul woon ngir ñu mën koo daal di wéyale liggéey booba ginnaaw bi fi sëriñ bi bàyyi ko it euh, commission booba demoon na saytu ji suuf si xool na fa nga xam ne fa la suuf si yemoon ñi nga xam ni ñëpp waxoon nañ ni bu kenn laalaat lenn te commission bi yeggadul ab liggéeyam nañu taxawal seen loxo ah seetlu nañ nag ci lu toll ci ay Euh, ju daanaka lu tolloog téeméer ak lu topp ci ay parcelles ñu ngi koy joxe ci loo xamante ni recensé nañ ko te ñi ñu ko jox du man maa leen ko jox du commission bi nga xam ne moom lañ mettre en place moo leen ko jox day am ay benn benn ñoo xam ne dañoo bokk ci commission bi di ko joxe ànd kook ñoo xamante ni amuñ ci ndigal di ko joxe sëñ bi nag mi ngi yëgal ñëpp ne fépp foo xam ni fu ñu ko war a yëgle la yëgle na ko fa suuf si nag ci loxol njaboot gi la ne njaboot gi ñoom ñooy saytu suuf si recensé ko identifie ñi nga xam ni ñoom la sëñ bi joxoon ba noppi doog a wéyale liggéey boobu nga xam ni moom la sëñ bi bëggoon ci suuf si liggéey boobu nag àggagul képp ku ñu jox yaa ngi profité di defar na nga xam ni ci li nga ne wérul du lu njaboot gi ànd du lu commission bi def ay benn benn nit ñoo koy def te kat fañ ko teg teguñu ko fenn ci këyit ndax kat bu fekkente ne da ngay defar kër guñ la jox wala suuf suñ la jox war ngaa am autorisation de construire de de de construire te amuñu autorisation de construire amuñu ay këyit yuy wane ne njaboot gi ñoo leen ko jox ña koy def nag ñëpp xam nañu leen waaye ngir mu bañ a jur coow ngir ay coow bañ a am tax sëriñ bi taxawal commission boo xam ni wax na leen ni leen képp ku ñu fekkati. muy def ci suuf si di ci tabax ndax ñëpp taxawloo nañ leen ñëpp lañ taxawloo amul kenn koo xam ni yaa ngi liggéey ci suuf soo ci suuf si te ñu bàyyi la ci képp ku ñu fekk ngay taxaw ngay liggéey danañ la taxawloo li ñuy def nag mooy dañ koy jël jox ko maçon boo xam ni moom liggéey rek moo ko tax a jóg ñu yëkkati ko jox ko bu ko defee maçon ba moom liggéey ko tax a jóg day daal di nekk ci liggéey ba waaye ñuy yëgal maçon yi suuf si nga xam ni mooy suufu sëñ bi képp kuñ ciy liggéeyloo boo buggul ay coow nanga nga ca daal di deñ ba set ndax kat yii fi ay coow rek lay jur sëñ bi buggul ay coow maa ngi attire attention wu ñëpp ñu xam ni njaboot sëñ bi njabootu sëñ bi day bëgguñu ay coow bëgguñu lenn loo xamante ne lu yëngal ay coow la muy muy muy jaare ci ñoom ñoom de tal nañu leneen lu dul ay coow kon nag ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yi ñu xam ni ñëpp njabootuk sëriñ bi lañ ñëpp ay taalibe sëriñ bi lañ waaye aw mbir boo ko bëggee defar danga koy tënk ci ndigal da nga koy da nga koy tëral ci ab organisation on est en de fair un recensement recensement bi buñ ci jógee identification la ñuy def bu ñu defee identification ba xam lii la ñu joxe lii joxewuñu ko la ca des ñu wéyale liggéey ba nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon ñu àndee ko ak njaboot gi kon nag ci ndigalul sëriñ bi dajale nañ commission boo xam ni Madinatu Salaam Papa Ndiaye Gambi ak ñi nga xam ni ñoom la ñu cité ci liste yi ñoom danañu def commission boo xam ni ku ñu fekk ngay defar ci suuf si danañ la taxawloo boo bañee ah danañ dal ci sa kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah